asalaamaaleykum internetu Sénégo ak Kawtef ñu ngi leen di nuyu di kontaan saa su ne ni ngeen di taaxirloo suñu programme euh, sur nos différentes plateforme tey nag dañu am gan gan bi nag euh, mun nañu wax ne c'est une première interview boo xam ne mu ngi koy def mu ngi nuyu mu ngi tudd Tida ñëw fii Sénégal am ab déclaration boo xam ne ne daf ko bëgg a def euh, avant ñuy dugg ci laaj ak tontu Tida ñu ngi lay nuyu. d' accord euh, da am déclaration boo bëgg a def. Euh, lan mooy déclaration dama am déclaration bu mu bëgg def. Mhm. à propos de Bambaly mooy doomu Mapenda Seck bi. Bambaly Seck. lan la exactement. dañu am doom bu jigéen. yéen ñaar. Mhm. doom bu jigéen depuis quand. Euh, quatre ans 2019 la accouché xale bi. 2019 ngeen am doom da ngeen dafa nekkoon sa jëkkër takk. suuf wala sama jëkkër. copain la woon. d' accord est ce que mën nga ñëw expliquer ci relation bi ak même temps aussi doom bi parce que doom boobu dégguñ ko fenn. doom boobu dégg kenn déggu ko fenn sax. lu tax à part moom seen waa kër dem naa ba ci papaam yóbbu xale bi foofu dem naa ba ci yaayam yóbbu fa xale bi sama yaay aussi dem na fa. yóbbu fa xale bi mais à part loolu média yi kenn déggu ko fenn. léegi ñoom parents bi nga ko yóbbu lan lañ la wax. ñi sama yaay bu mu fa demee dafa dem si euh, yaay yaayu bàmbaali léegi mère bi ne ko nii. boo bëggee mën na def test ADN sama yaay ne ko amul problème test bi bu fekkoon tey tey tey dañ koy def test bi fekkoon tey de mun ne sama yaay jox ma sama jox ma sa numéro sama yaay jox ko sama jox ko numéro mm-hmm. sama yaay jox ko numéro bi mu ne ko dinaa la woo mm-hmm. boobu léegi dégg ko man aussi moom fa demee pareil loolu la ma wax mm-hmm. bambaali bambaali moom est-ce que grossesse bi avant doom bi di juddu reconnaître yëg na grossesse bi yëg na ëmb bi parce que bu may ëmb man fa euh, xaw ma ne woon ni sa ëmb naa dama demoon benn soirée Ousmane Seck laa dama xaw ma Ndiaye bu ñu jugee foofu ma ànd samay copine benn magam mu jigéen si jabaram kooku moom laa àndaloon ak euh, benn doomu bugguma tudd tur. Mm-hmm. léegi ñu ànd bu ñu àndee ñu jënd ci lendemain bi ñu ne ma da nga ëmb ma ne man dara dalu ma après ñu jënd test bi ñu def test bi affaire bu positif ma ne leen Bambaly moo ko jur léegi ñu woo téléphone mu ñëw. man juruma doom bi af du affaire yooyu noonu di wax léegi ñu toog trois jours quatre jours ñu gisante waat man ak moom mu ne ma du ma la wax nga dindi ko du wax nga téye ko loolu la wax mu ne ma du la wax nga dindi ko duma la wax nga téye ko mm-hmm. léegi depuis boobu la dégager ay responsabilité d'accord yaa ngi wax ci soirée est-ce que soirée boobu doo ñu leeral ci soirée boobu nga mës a gis bambal yi ngeen ànd comme copain copine. non non wala da ngeen doon dund. doon naa doon naa gis doon naa gis seen kër doon naa dem seen kër du moins ba jóg. mais dem seen kër ci ban anam da nga doon dem seen kër seeti bambal. wala da nga doon dem seen kër moom bambal yi. moom bambal yi kon relation bi love line bi da ngeen ko doon dund bu baax. dama doon dem seen kër dem seeti ko non man nag moom suñu relation demeewul woon noonu. relation freelance. relation voilà demeewul woon noonu. c'est-à-dire da lay soxla wala téléphone. wala mu namm la wala téléphone nga dem. nga gisante après ku ci nekk ku nekk dem soo demee fàtte nga la wala mu soxla xaalis wala après c'est fini. d'accord léegi tey Bambaly nga ne doom bi moom moo ko moom. moo moo ko jur moo ko jur. Mhm. Bambaly yaa ngi wax say kàddu ne loolu bi mu amee waxu la ne da koy téye wala danga koy bàyyi. Mhm. tey est-ce que nekkul moom daf la xamaloon ñeneen dala xamaloon ñeneen ñoo xam ne. parce que yaa ngi naa ne relation bi doonu toon comme relation bu dëgër mais da ngeen bu la soxlaa woo la yow tamit boo ko soxlaa woo ko mm-hmm. est-ce que du it jàppatoon ay yeneen moromam tamit mm-hmm. noonu la fa doon mm-hmm. demee moom si jimmi boppam taxaw na ma man maa jur jaara moom si jimi boppam bu mu amee doom ba trois mois daan na commencé waat di ñëw yoof su ma dëkkoon mu ne ma jaar man maa ko jur sama doom la moom moo la gën a xam ne moom moo jur xale bi. wax na ma ko. Mm. mais jëlu la woon en charge aussi bi nga nekkee. grossesse jëlu ko woon jëlu ma woon engagement boo xam ne moom jëlu woon benn engagement. léegi yow bi ngay bi ngay am doom ñaata at nga amoon ak jamono ji it ñaata at nga jamono yi j'ai 23 ans. bi ngay am doom ñaata at nga amoon ay 19 ans. 2019 laa ko si jaar. 1999 laa juddu. 99 nga juddu. lu tax nga xaar ba xale bi am 4 nga door a wax tey. parce que dama xaar ba sonn. xaar cest diir dire dama dama ko xaar ba sonn chaque année mën a dina ñëw chaque année mën a dina ñëw. instant dama sës. parent yi dugg ci à sa yaay sa papa wala ñeneen say nijaay kenn dugg ci. non dugg ci sama yaay rek moo ci duggoon. d'accord euh, xale bi euh, instant bi jàngam ak éducation am yow yaa jël lépp en charge. man maa jël lépp en charge. da liggéey. Hmm? da liggéey. du ma doon liggéey mais arrêté na instant dama arrêté liggéey mais dama war a commencé waat incha allah. Hmm. léegi à peu près charge xale bi au total fin du mois ñaata lay doon ci coût yi nga xam ne da nga koy def soit ci couche ci école am ci lekkam. instant bi arrêté na couche yi. Hmm. instant arrêté na couche bi. mais école bi mënatu mënagul dem école parce que amagul papier parce que ma déposer papier sans que papaam newul mhm. mënul nekk tey ëmb bi tamit dañ ciy taxawaat ndaxte euh, xale bu jigéen bu nekkee ne da nga da da nga nekk en état de grossesse d'autant plus que euh, nekkagoo ci bi buumu sëy doom bi mm-hmm. balaa moo juddu dinañ lijjanti bu baax a baax kan moo nekk waajuram bu góor tey est-ce que it étape boobu nekkutoon ne da ngeen ci xaw a sàggan wala da ngeen doon tatoone tamit nga baal ma. damay laaj non sàgganuñu de sàgganuñu dem nañ dem nañ la laaxaani doon nañ ko doon nañ man doon naa wax ak moom. yow kese yaa doon wax ak man doon sama yaay aussi un jour woo na ma woo ma woo na paas ko sama yaay parce que dama ko message ma ne ko maa woo joloo mais sama yaay day dem sa kër papa ma penda. Mhm. mu woo ma ma paas sa yaay ma paas ko sama yaay mu ne ko bul dem sama kër papa doom liiwu ma ko laaw ëmbalu ma ko juruma doom ji bul dem sama kër papa sama yaay ne ma ni moom bàyyi na ko àdduna du fa dem. bi ma accouché la sama yaay doog a dem seen kër kër yaayam. Mhm. doom bi ku ko tuddee maam jaara yow. man maa ko tuddee jaara sama benn copine. sa benn copine nga ko mhm. tuddee. léegi fi mu toll nii lan kañ nga gëj a dégganteeg bambali. démb ci guddi. démb ci guddi. loolu lañ jot a wax. démb ci guddi mhm. non dama ko woo téléphone décroché wul ma woowaat ko téléphone décroché ma woowaat ko sama beneen numéro. mu décroché man ko ngir yàlla déglu ma wax la instant dama la soxla. man la man la ci daa mu ma après bloqué ma ma envoyé ko message WhatsApp mu liir ko tontuwul. kon da lay bloqué da lay coupé du la du la nangoo jël. Mhm. tey doom bi nee juru ko. Mhm. est-ce que tey moom tamit mënul jàpp ndax sortie bii ngay def. Euh, mhm. Bambaly Seck artiste la. ñun da nga ñëw rek ñuy def suñu liggéey. ci laaj ak tontu. nit ñi la laajee tamit dina yëkkati suñu téléphone daal di laaj Bambaly aussi information bii nga xam ne jot nañ ko. te ci moom la yitteel lan la ci mën a tontu ci day confirmer wala it bu nekkee dafa am loo xam ne da koy tontu ndax te euh, genre accusation yi bu amee. amee. Mhm. da ngay laajte les deux wante ñu fàttali ne yow yaa ñëw ci ñun pour def déclaration. Mhm. suñu liggéey rek la ñuy def te est-ce que jàppuñ tamit ne Bambaly du benn genre showbiz comme li mu quitté benn fu mu nekkoon changé rejoindre yeneen camp est-ce que. buuxuñ la aussi pour nga pour nga est-ce que amul ñu nekk sa ginnaaw. pour nga ñëw wax. non ndaxte boo toogee ba quatre ans. ba heure bii. kenn nekkoon sama ginnaaw. kenn buuxu message maa ngi nii mun naa ko génne ñëpp di ko gis démb moo ko message message maa ngi nii mun naa ko génne ñëpp di ko gis. message baa ngi nii. bàyyi di suumal ñu ko. yaa ngi gis. Mm-hmm. démb laa ko message. léegi lu tax demu leen ci papam ma Penda Seck. man dem naa fa. lum la wax. dem naa fa sama yaay dem na ci magam bu jigéen bu ñuy wax Fatba. Fatba ne ma bambaali moo jur xale bi magam bu jigéen bu mu bokk paap mu ne ma moom moo ko jur am magam bu góor ñu ne ma bambaali moo jur xale bi. ñoom ba gis na ko waaw. xale bi mm-hmm. gis ba gis na ko. léegi test ADN bi lan ngeen ciy xaar ci yéen la sooxee. wala ci bi man pare naa. jour bi ma yaayam waxee loolu mën ko tey bu fekkee ci guddi guddi gi dañuy def test ADN bi pare naa pour ñu def ko. internet Sénégo ak Kawtef ñu fàttali leen euh, ndaw suñu dalal mooy Tida moom nag dafa ñëw fii ci Sénégo euh, déclaration bokk na ci doom bi nga xam ne mu ngi nekk di Bambaly Seck moom mooy papaam jaaral la xale bi tudd doom bu jigéen la. wante ci ay kàddoom ba tey mu ngi xam ne ni kii di Bambaly Seck moom nanguwul jël paternité boobule doom moo tax mu ñëw fii ci sénégo def déclaration comme déclaration am nag ñu nit dinañ woo ki nga xam ne mooy Bambaly Seck mu wax ñu ci boobu boobule mbir euh, Tida balaa ñoo bàyyi euh, balaa ñoo quitté ak yow euh, tey aussi nga nga jéggal ma mm-hmm. question la rek est-ce que aussi euh, sa responsabilité du ci jouer du ci jouer dans la mesure où tey Bambaly euh, nee nga doonul love line bu dëgër euh, du genre que appel téléphone la woon après gisante vite fait mu dem ba tey doom juddu ci est-ce que xaaroon nga conséquence yi ñëw ci ak xale bi nga xam ne tey euh, demandé wul que moom mu juddu en fait. oui c'est vrai parce que bu ma jëlee ëmb bi dañ ma doon wax mu dindi ko. ku la ko doon wax. Euh, sama xarit yi dañ ma doon wax dindi koo dindi ko dindi ko ma ne leen comme comme moom woo nañ ko mu ñëw ba fii ñu wax ko mun a jurul xale bi man ëmb bi dama koy téye ma ne ëmb bi du mu xalaat ko dindi ci àdduna dama koy téye yàlla di dama àtte ak moom looloo tax ma téye ëmb bi. mais ëmb biit bi nga koy jël yaa ngi toll ci ay 19 ans 18 ans mënuloo woon sa bopp lu bari parce que amagoo woon liggéey bu taxaw jël risque ne da ngay téye ëmb est-ce que xaaroo ci woon leneen comme bu ko reconnaître te it artiste la xaaroo ci amoo ci woon benn mm. non c'est juste tegoon naa ko fenn foo xam ne sama ngor may woon may may may def dara deretam wala da nga bëggoon da ngeen am doom non non pas bëgg ñu am doom moom tegoon naa ko foo xam ne sama xol may may def dara deretam mm-hmm. loolu moo tax ma téye xale bi. ëmb bi nag à sa yaay sa mbokk yi kenn waxu ci kenn defu ci non non sama yaay rek laa sama yaay laa gisoon. d'accord. waaw. 2016. 2016 2017 fin 2018. nan ngeen xamante laa ëmb jaara. nan ngeen euh, xamante man maa demoon journal ma euh, safrula cité alin Sow. Mhm. dem seeti ko foofu noonu cité Aline Sow. da nga demoon seeti ko dama demoon seeti ko en tant que fans. en tant que fans. waaw cité Aline Sow oh, mais ba ma demee cité Aline Sow fekk ma ko foofu noonu. Mm-hmm. léegi bay sëram bi may wax ni ku doon sëy ak euh, magam bu góor kooku moo ma yóbbu Jona jour boobu lañ xamante man ak moom. Mm-hmm. après bi ngeen xamante relation bi nu mu nu mu demee après si lañ xamante ñu déggante parfois ñu gisante. bi ngeen xamante relation fan ak artiste la. wala it après nobante parce que. non relation fan sax artiste moom ma fi yóbbu woon. Mm-hmm. Mhm. léegi lu changé relation bi entre temps moom moo def premier pas wala yaa ko kii yaa ko charmé wala nu fa demee <laughs> xale bi dangaa jongo ma tamit wax rek gisee premier jour bi rek profito premier jour profito c'est-à-dire mhm. premier jour lan moo am premier jour lan moo ci am premier jour bu njëkkee gisante mhm. daf laa caressé accolade wala non dañuy expliquer man exemple rek laa joxe lan moo am premier jour bi. premier jour bi profité rek comme kii la mu wax. du genre expliquer. Hmm? expliquer parce que ñi lay seetaan tamit dañuy bëgg a xam. Mm-hmm. profité c'est-à-dire ci ban sens. non premier jour bu ñu gisante ñëw naa ñu gisante. jaune mm-hmm. a ba ma ñibbee. après ma woo ko téléphone ma ne ko man maa ngi nii di ñibbi taxi laay jël mu ne ma fekk ma pasal si ki ko rond point vingt six bi noonu fekk mu ngi si benn studio am son bi mu doon dugal mhm. ma ne ko waa d'accord maa ngi ñëw après ba dem foofu bu ñu jigee foofu ñu delluwaat journal si benn kër xaritam mhm. foofu lañ nekkoon jour boobu laa ñu ko nekk ak moom nekk ak moom seq dara wala waaw d'accord man xam soxlaw ma xaalis soxlaw ma dara mhm. dara soxlaw ma ko ndax man lu ma ko mënul jox moom bambara mënu ma ko jox lenn rek laa bëgg mu reconnaître xale bi defaral ko ay papier soxla ma dara ci moom du xaalis du dara na reconnaître doomam rek loolu laa bëgg. est-ce que pare nga pour dem ci yoon pour mu reconnaître. doomam pare naa pare woon naa pour dem ci yoon. mais dañ ma ñaan. ku la ñaan dafa am ba ku ma ñaan. kooku bi ngay ñëw fii déggante. bi may ñëw fii déggante nañ ma nag moom. d'accord.